monsieur le préfet monsieur le gouverneur monsieur le président de la république du Sénégal parce que lui... jàppaar naa ne bi ñu ci waxulee ay bakkan na fi rot parce que ñii détermination bi ñu am waa dëkk bii at ñi wër yaakaar naa ñu dellu gannaaw parce que tamit ñoom dañoo nekk ñoo nekk ci dëgg sous préfet je dara jël ko ci àdduna am na loo xam ne même bu ñu ko jar na nga simi mbubb nga démissionné parce que doo as gor am na loo xamante ne si waru faa àgg su fekkee dafa am ñu nekk si gannaaw di ko yabal na arrêté parce que bu ko defulee moom bu dina dina fi tur bakkan bàyyi tur bakkanam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mais nag danoo ñëw bëgg ñoo jaay doole ñu nit ñu ñëw reporté ay xale lan comme ñoon ay jeunes lan daaw dara dara daluñu ñu dàq leen duma leen ba nangu seen i bagage mi ngi nii bii takkagul bii gis nga ko man li ma gën a métti mooy xale yu ndaw yii ñu jàpp di sànni bagage bu doon ñu ñoom dong bu ñu ko sànni amul problème mais xale ndaw ñu sànni bagage ak ñi xolal ma xale ndaw yi génn leen ma xale lii xam yaa ah, yow du yoon mais bu ñoom dong amul problème fii ba gee ko wasalaam am ko jógoon man leen ñoo ko bokk njaboot gi jàmm ci bëgg lii leen su préfet di bëgg a dugal na du jur parce que moom mi ko moomul su ne bakkanam la ci teg ah ci ñun ñaam ñi nga noo moom suñu suuf si kon bu ci attanee bakkanam ñu gën koy attan bakkanam dem nañu nag dem nañu gone yi dàqale nee naa leen bu leen ko toobi démb ñii dañ ko toobi ma ko bu ko toobee la muy jur doon jàmm parce que néew ma ko am demee ci bak ci ay néew ngeen koy ba léegi ci niw lañ ko dem nañu nag daw nañ dem nee nañ dañuy wuti renfort ñoo xam lu ñu mën di wuti quel que soit alpha heure bu ñu ñëwee dañ fekk mi mbooloo mu gën a am tey ba léegi dañu fekk te xam naa ne lan ci doon jar bu jëlee ci gar moom duñ ko ci attan parce la te xam na ne moom buñ ci dee àjjana lañ jëm ah, man man xam naa ne jëkk ma jàpp sama soxna man ni di ko wàcce man ko du wàcce fu ma jëm fa lay bu ma doon dee day dee eh,